asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi tudd soxna Aminata Sakho macha allah doom ci Seydina Aliou Sakho mi ngi doon defal ñaan gi ak Seyda Mariama Dramé ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sant bu baax a baax macha allah di am kontante lool tey di wax ak xol bu sedd guy suñ kilifa gi nga xam ne ni tey moom lañ doon defal ñaan macha allah muy kilifa ko nga xam ne nii dëgg yàlla waajur bi nga xam ne desalul doom dara. ndax lépp lu mu warloog doom rek def na ko euh, yar nañu jàngaloon nañu teg nañu ci yoonu siraatal mustaxim kenn ku nekk fam la war a dugal dugal la li ñu koy deseel daal mooy ñaan ñaanal ko yàlla fam nekk gënal ko fi mu baye koo waaye di gërëm ñëpp di sant ñëpp famille bi ñëpp tey ñëpp ñëw nañ mbokk gi ñëw nañ waa Saalum yi ñëw nañ xarit yi ñëw nañ soppee ñëw nañ ñëpp ngir lan ngir jëmmi góor bu baax googu nga xam ne nii lépp lu ko nit seedeel rek lu dëgg la ndax liñ ko xamee mooy jullite jaamu yàlla gor nangoo liggéey macha allah yar njabootam lépp li nga xam ne mu ngi ko doon santaane rek moom moo ci jiitu njabootam lépp foo jotee moom rek addinaam yëpp daf ne liggéey ak jaamu yàlla la ak dundam yëpp loolu la ko def liggéey ak jaamu yàlla dafa daal wax ne man fowuma foluma ànduma ak kuy fotam kon ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko ñaanal yàlla di ñaan yàlla yàlla na yaxam sedd guy yàlla na ko fa mu tëdd gënal fi mu fi mu bàyyee ko yàlla na ko yàlla wanalee rasulullah soppeem ba ak Seex Max Tijaan ak Mawlana Seydi Alaaji Omar Ndaw bi nga xam ne ni macha allah moom la moom la moom la kii woon ñu ngi ñaan yàlla yàlla seddal ay yaxam boole ko suñu waajur wa jigéen fa nekk ak mbooleem ñu fa fekk ak ñu ko fa fekk ci barke yonent bi nuyu ñooñu ñëpp ziar nañu